njabootu sëriñ Bachir ak njabootu sëriñ Baar la yabar si Cheikh Moustapha mi sëriñ Tuubaa tey ñu ko teewal ko fi siyaareel ko te jottali ko sa jarite jottali la ngërëm lu jëm si sew te jóge ci mboolem mbokk yi ak murid yi sëriñ bi yàlla fi yàgg yàlla fi yàgg ku mën a jaboote nga la Cheikh laa doon wax ne lu nit fekk ci kilifa muurama waaye alhamdulilahi rabbil alamin jëmm nga joo xam ne ni ñuy jobate xam ko te sama sëñ Mor wax ne fu gent am ñàkk yëgu ko waral yàlla dimbali leen nag yëg nga mbooleem bind fi yémali woo ko ci mur yi te yémali woo ko ci julli ñëpp nga yëpp yëg googu nga jëm ci bind fi nag te jëme ko ci mën ñëpp yàlla na ci sa borom defal lu kowee sa njort ci nga yàgg ci suñu kanam yàggin waxee ne dañu jàpp ne mënutoon am yàlla ko yàlla amal mu wax ne nañ fi ñëw mu yebal sëriñ Moustapha mi ak sëriñ Cheikh mii di kilifa ak yoon bi ngir ñu ñëw teewal ko fi ànd ak sëriñ Abdourahmane ak mbooloo njëwetu kër gi mu wax ne sant na yàlla bu baax ci njabootam gi am na mbégte ci ñoom lool ndax yàlla dawal na ci ñoom lim moom lépp jox nañ ko la ko tàmbalee Seex Seex Bombale Sëriñ Seex Mbakke Madina ba ki gën a ndawe ñoom ñëpp kenn ku ne la moom ci yow jox nga ko sëñ Abdourahmane ngi nii toog ànd ak njabootu jawrinam Sëriñ Moustapha njabootu kër Sëriñ Daaru Osé na nga nee toog seex yi ci kenn ku ne yebal nga fi ndaw loolu fi teewal waaye jamono deme noo xam ne nag li ngay yéene ak li ngay man dara tolloo moo xam ne lii mu fi indi te indi ko ci turu kër gi su sañoon sax di su ko tudd waaye mu ni su ko jàkk tudd mu ñaari téeméeri million ak fukk ak ñeent ak ñaar fukki junni yu teg juróom-ñeent junni ak ñaari téeméer téeméer ak juróom-ñetti fukk yu teg juróom ñu ñaar dërëm su sañoon bu fi ñëwee nag ni Seex Musaa jiite woon sañ eh, gannaaw sañ Tuubaa su sañoon bu fi ñëwee noonu la jiitoo ñëpp waaye jamono moo ko mayut loo mën a yenn du bokkale jamono yi def loolu nag liggéey baa ngi nii seeg baa ngi fi 214 millions. moo wax ne. sëriñ Moussa ngi nii toog ànd ak njabootu Kër Sëñ Bara gépp ngir doxal la seen ñaari wajur seqoon su la neexoon bari ni ñëpp te defuñ ko kon mi ngi lay dénk nga ñaanal leen. sant na nañ sant goo xam ne yemul fenn ndax soo leen yoroon ber seen yëf di ko ŋàbb di ko indi te su boobaa duñ ci am jenn yaraanga waaye nangu giñ nangu nag la soxna Aminata Lo defoon tax ñu wéyal ko mais bëgg na nga eh, dimbale leen dolli leen ba ñëpp xam ne dolli ko nañ nee nag mi ngi lay dénk njaboot gi nga dolli leen taxaw te dolli leen a dimbale ngir lii dimbale ci yoon yi sa loxo la ne ndax ku fi neel Sëñ Tuubaa rek lay dimbale ci sa ne te xam nañ lu ci waay am yéene nga ko lu ko ëpp loolu ne nag mi ngi lay doolu dénk boppam di dénk di njaboot gi tey feddali yaakaaram ak pastéefam ci yow jërëjëf ñoo ngi delloo nuyoo bi yëpp sëriñ bi nee na jërëjëf moo ngi delloo nuyoo bi ak ziar bi yëpp mënu maa wax sama mbégte mu ne tey jii mën ta wax mbégteem ndax sama euh, mbirum bopp weesu na weesu na man koo wax. ndax ndax mbirum boppam weesu na ci man koo wax. mën koo wone mën koo wane. dégg naa sëñ Moussa li nga wax bu baax a baax. mu ne sëñ Moussa sëriñ mi nee na kàddu yi nga yëkkati dégg na ko bu baax a baax. xam naa itam jëf ji bu baax. mu ne xam na itam jëf ji bu baax baax. liggéeyu sëriñ Touba bii ngeen andi. mu ne liggéeyu sëriñ Touba bii ngeen andi. gis naa ko. mu ne gis na ko. yëg naa ko na ko. waaye teewaayu njaboot gi. mu ne waaye teewaayu njaboot gi. fii fii sama kanam. mu ne fii ci kanamam. moo gënal mu joxoon ma àdduna ak li ci mu ne loolu moo gënoon ñu jox ko àdduna ak li ci biiram. noonu la demee mu ne noonu la demee. noonu la demee fi man. mu ne noonu la demee ci moom. maa ngi koy seereel suñu borom itam. mu ne mu ngi koy seereel suñu borom itam. di ko seereel Serigne Touba. di leen di leen gën a wan nag sama cant. mu ne di leen gën a wan ak cantam. ak sama ngërëm. ak ngërëmam. ak sama xel mu dal. ak xelam mu dal. ci gën a. gën leen a seereel. mu ne ci gën leen a seereel. di ko yeesal di ko yeesal. muy jaayante. ak jaayanteem ak sëriñ bi ak sëriñ bi. di gën a seereel itam. mu ne di leen gën a seereel itam. feddali gu war a feddali sama laxasaay. mu ne feddali gu war a feddali ay laxasaayam. fas gën a sax ci mu ne fas yéene gën a sax ci liggéeyal sëriñ bi. te fas yéene ko gën a ànd ak yéen. te fas gën a ànd ak yéen nag. dama am ci yéen yéene xam ne nag. mu ne te mu am ci yéen yéene joo xam ne. yéen laa jiital ci sama bopp. mu ne yéen la jiital ci boppam. ndax xam naa jëf ji bu baax. mu ne ndax jëf ji xam na ko bu baax a baax. taxawaay bu baax mu ne xam na taxawaay bu baax a baax. xam na yéene ji xam na yéene ji. xam na yitte ji kon nag kàddu yooyu rek laa mën a leeral ci li nga xam ne moo nekk fi man mu ne kon kàddu rek la mën a leeral li nga xam ne moo nekk ci moom. waaye du lu ma mën a le du du du du du lu ma mën a wone. mu ne waaye nekk loo xam ne mën na koo wone. bañ bañ bañ mën koo gis. bañ mën koo gis. waaye suñ borom nag. waaye suñ borom nag. mi ko def mi ko def. xam na ko xam na ko. sëriñ bi mu tax mu def ko. mu ne sëriñ bi tax mu def ko. xam na ko xam na ko. kon nag jërë ngeen jëf kon nag jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. fa tabaarakallah fa tabaarakallah.